célébrer le prophète Mohammed sallallahu Mustafa Moustapha rek lay way waa gën ñep rek lay way ñoko ko ak yeen deuxième partie Feeling ñu ci andok suñu ay partenaire bokk na ci Nestlé Cérélac mi nga xamé ni mo bax ci xalé yi bu ñu amee juróom benn weer lañu leen koy tambalé jox mboolem vitamine bu ñu soxla mu ngi ci euh, Nestlé way non lañu andé itam boisson yi nga xamé ni moy boisson king mos mosat la amna juroom ñetti parfum tand sa bu la neex la kenn ku ne yaay xol bi la neex jël ko def ko muy man man xito bala xëccu mbër laa indi tey noonu la ñu ànd ak TDK bi nga xamee ni moo ñu indil déodorant like déodorant bi nga xamee ni 209 la boo ko defee aajowul ngay def parfum tellement da ngay xeeñ neex toute la journée tàngaay la ñu nekk nag like dafa ñëw ci jamono bi nga xamee ni moom lañ ko soxlaa waaye noonu la ñu ànd ak euh, calpe free money mi nga xamee ni moo ñu jagleel carte bancaire bi tax ñu mën a jëfandikoo suñu xaalis waxtu wu ñu ko soxlaa 24 heures sur 24 ba noppi itam indil ñu service lebal ma bu toll ci 300 000 francs CFA loolu firi rek moo ko mën boo ànd ak ñun da ngay firi chaque deux chaque chaque jour ci deuxième partie bi dañuy dalal ay daanaan tey daanaan bu mag la ñu dalal koo xamante ni macha allah fexe na ba empreinte bokk ci musique sénégalaise kenn dugg ci génne sa waa ji laay bàyyi nag mu présenté leen ko alxaaji Cheikh Saad Azel Beyti bàyyi nuuraa <laughs> baayu nuura tali Aliou Mbaye Ndione Mbaye gàlle Mambay Joojo Feri mu ñu dénk alaaji Seex Njaat Mbay mi nga kan ci soor <laughs> fakal la xam nga am réew yërmande da cay baax yooyu ay kalma la ah yooyu ay kalma afi ay kalma la pourtant afi afi xam eh. na afi xam nga xam nga nit bu ngeen naanantee coow li du mën a te ni suñu invité bi mu gis bokk na ci li tax mu daw ñëw ci rek ci ci télé bi. Mbadu. waaw moom om lay bañ a gis om rawatina <laughs> góor gu jàttal. dëgg la moom day gis om lay bañ a gis om. Uh-huh. mi ngi noonu ayca Ndiol ñu ngi nuyu bu baax a baax téléspectateur u Sen TV di leen nuyu nuyu buur waaye internautes yi nga xam ne ñu ngi ci page officielle bu Sen TV auditeur u Zik FM ci 89 ngi leen nuyu bu baax a baax a baax tey rek dañu dalal koo xam ne Ndiol wax na ko. ndaanaan la boo xam ni marqué na am xantam ci euh, scène musicale bu Sénégal ndax it nag liggéey na ko ci ay jamono dem fi Amérique di kat waaye du tee waxtu wu nekk li olof Njaay di wax naan picc nga ca kaw waaye xel maa ci suuf lu mu yàgg-yàgg Amérique xam na ni basam Sénégal la tout le temps dafay ñëw euh, defar basam chaque année nag bu ñëwee danaan day toog toog ne dañuy jég ji di gis mu delluwaat mais bii paa moom dafa décider pour toog gën a régler basam ba mu gën a dëgër këcc mu ko a dellu fa mu nekkoon Bakka ñaa lañ koy wax Bakka ci loo nekk mbaay ngam jàmm. ah Alaaji Seex man lay bu baax a baax. <laughs> Euh, di la fay di fay sama jigéen bi nga xam ni mooy Njoon. Mm-hmm. Euh, Alima di kontaan ci moom baax a baax a baax. naan salaamaaleykum waa Sénégal. naan mm-hmm. salaamaaleykum waa àdduna bi. Mm-hmm. Euh, naan nag alhamdulilahi rabbil alamin bi ma jàkkaarloo yéen fii ci Zik. war a toj ay kàddu tasaare ay kàddu. aduna bi tatan ko waaw ma ngi nuyu wa pikin ginaaw ray tamit bu baax a baax euh di nuyu wa Mbaaw han ah, di nuyu wa Tëngéej ci Saint Mansour wa Cypress ma ngi di ñep bu baax baax ak wa aslam H&M Grand Yoff. ak waa HLM Grand mais bu ñëk yi da nga daan nuyu wa pikin da nga daan nuyu mais tay da nga yaatal nuyu bi. waaw Cheikh li waral lool tay da nga tudd ay dëkk. <laughs> waaw xam nga euh, dama dëkk aslam H&M Grand yow Euh, maag sama sœur ñu naan ko mat ñaŋ. Mm. Euh, suñu boroom nag léegi def euh, may may yeewoo fi nga xam ni moom mooy tëngëj. Mm-hmm. waaw si de sëñ Mansour taxaloog Cyprès fa laa yeewoo léegi loolu la suñu borom dogal te dëkkandoo moom wax dëgg yàlla. Euh, kenn amul fayam. waaw rawatina nga dëkk gi nga xam ne mooy artiste boo xam ni euh, chaque jour yaa ngi am ay nit ñoo xam ne ñëw di la seet. c'est vrai moo tax da ngay profité nag di leen baalu ak. waaw pare mhm. <laughs> ci baax macha ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy. sponsor yi ñu àndal rek bu ñu paree nag dugg ak Bakanya ci waxtaani waaye tamit œuvre nga xam ni def na ko ñoon uh-huh. noonu la ñu ànd ak Free Money mi nga xam ni transfert d'argent la ci Sénégal def innovation de taille indil nañu ay carte bancaire yi tax ni moom suñu alal fu nu mën a dem ci àdduna plus de deux cent dix pays foo ci dem sa alal yaa moom da dem ba ci gàpp bi la gën a jege dugal sa carte mu ko composé ko mu joxal sa xaalis nga jëfandikoo noonu la ñu indee tamit application My Free application la boo xam ni ñëpp ci bokk yam léegi fi mu toll nii yow mi abonné ci ñun ak ñàkk abonné ci ñun da dem ci Play Store waa Google Play nga daal di télécharger application My Free su boobaa nag di nga mën di yónnee jot xaalis mën a fay say facture courant ndox abonnement TNT ba ci canal waaye nag service bi ñu leen indil muy lebal ma ak Cofina ñun waa Free ni dañuy leblee xaalis ni ñuy leblee mooy da ngay dem nga tapé dièse def 150 étoiles def 7 def dièse bësal touche appel su boobaa nag dinañ la wax ndax war ngaa mën a bokk ci ñi lebam de trois cent mille francs CFA la ñuy leble suñ la ko lebelee nag xanaa loolu départ lañ doon. dëgg la 300000 départ. lancement waaw bii foro bii ama jaay boobu boobu ma jël nii la bii for la. taxar fa la dafa pratiko la da ngay def nii rek. ni tourné def nii yaa nga maanaam soo defee nii ibbeeku na boo defee nii mu tëju yaa nga nga def nii rek <laughs> tubaar fa la waaw daal def nii rek xool sa poqataan fu mu nekkee rek nga def ko nii ah. xet gu neex la am mu sedd indi xet gu neex maa li <laughs> mu ngi noonu. seex loolu loolu neex na. xoolal gun gun ak ban. gun ak ban. tarfa kàlla mi ngi noonu. Mm-hmm. yow yow il faut ñu jox la ci xaar ñu la ci. dëgg la Baka xaar ñu jox la ci. moom xaw <laughs> ma def gun ak ban. waaw nga loolu. dara ñu xool bii. da ngeen jëndi ko ñoon fan ci TDK. foofu gars di jëndee. voilà ñu dugg ak Bakka bu ñu paree daal di ñëwaat ci yeneen sponsor yu ñu àndal. neex na on se rappelle ñun ñëpp at bi nga xamee ne ci lañ ko découvrir ba ci lañ leen découvrir moom ak ñu ma doon àndal déglu fii Let's welcome, all the way from Dakar City, Senegal, West Africa's hip hop 20th century grills. It's time to listen and learn about what Chuck D and KRS1 have known for a very, very long time. Performing their hit single, Listen to this, and I'm gonna take you on the next level. <laughs> fekk ci nandite gu neex goo xam ne mi ma fekk ci nandite goo xam ni non ma amoon ñaari jin de la bi di ko awante bu ma demee xumbal fural ñu teg way bi ma ko may def seen pecc bi tànk bi nii jar na lu néew maa la wax loolu Why is it L-O-V-E? Show me in my p I'm sweet. i up. dal fii fële fële fële waaye doon sama waay bu nga yàq sama laaj ndax dal fii fële fële fële fu fas du daw xel doxantu oto wala fas du fa doxantu dégg sama wax du ma gënal man bañ sama wax du ma gënal man xoolal ci maam wala baay ba xoolal ci baay wala yaay ga gëw ma cosaan wala aay kala kalafan fële wala kala kalafan fële bëgg a wax fii wala bëgg a wax kala kalafan fële wala kala fële kalafan kala wala kalafan fële kala fële gën kalafan fële fële This is what this is about. One, two, three, four, lady go. Dalfi, dalfe, dal fee dal fële wax fii wax fee wax fële loolu jëppi jëppi laay. Show them.

da nga ko jëloon jël boo xam ni. Mhm. matinée yi da koy dégg. di ko dégg ci rajo yi. di ko dégg ci àdduna bi muy daw ba pare aussi wax ji am njariñ. Mhm. Euh, jigéen ñëpp di ko di ko di ko di ko jëfee ci jàng lu bari. parce que li ma gën a neex ci woy bi bu ma koy déglu ba léegi nii mooy euh, am na ñoo xam ne dañ may woo mais ku nekk da nga may wax ca lam la fekkoon. waaye léegi doon nga doon nga doon nga yaay boo xam ni. c'est vrai euh, yor nga sa njaboot yor sa borom kër. gérer mais des fois nit woo ma ni ma man bakka li ma jaaxal morceau bi bi nga koy génne fii la ma fekkoon te bu ma lay xool ba léegi nii day mel ni morceau bi démb nga ko génne c'est vrai te boo koy wayaat day mel ni démb nga ko way mm-hmm. euh, mu nekk morceau boo xam ni loolu mooy am solo ci morceau mm-hmm. moo tax sama jigéen laay mi ngi ba léegi kenn moom la ko dara mooy seen carte d'identité waaw tax ma remixé waat ko mm-hmm. def ko mbalax te ku ne xam na ni bakka ñaa moom nu mu ko yëgee rek la koy defee c'est vrai dafa dafa polyvalent c'est important et puis rythme xam nga rythme son dafa nekkoon benn instant boo xam Euh, ñëpp lañ ko ñëpp lañ ko jëlandoo woon parce que boo xoolee son bii nii. Mm-hmm. bu leen bàyyi tëgg nañ ci. waaw ak yeneen groupe yoo xam ne jël nañ ko. xam nga mm-hmm. Salimata. waaw waaw oh Salimata. waaw seen son yooyu nga xam ne waaw mu nekkoon ay. suñuy flavor ay suma waaye suma suñu flavor. <laughs> waaw jamono après sama flavor. jamono ji jamono ji jamono ji musique bi musique bi maanaam neexoon na trop sax. waaw musique bi dafa neexoon ba pare. Mm-hmm. dafa doxoon aussi jàmm ji bari. Mm-hmm. ba pare aussi euh, group hip hop yi. Mm-hmm. nekkoon group boo xam da nga ciy sentir lii groupe rap la mais am na jàmm. Uh-huh. am na salaam jamono jooju daara ji fii PBS. xam na bu ngoonee xam vous étiez très free. rapataag yi neex. matinée yi neex. gars yi di sant ànd ak seen i show xam nga mais. doo ci sentir dara loo xam ne dalay gaañ mais mais gox bi système benn problème la ñu am. pour hmm. seen carrière musicale ne li tax seen carrière musicale eggul fu mu war a egg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy teel tukki bi ngeen teel a tukki. waaw dem ci dëkk boo xam ni kenn ku ci nekk la ngay dundee yaa war a mën a gérer sa bopp. loolu xaw na tardé tamit seen seen seen seen carrière musicale. waaw ci benn côté loolu ci la bokk mais en même temps tamit euh, sant suñu borom parce que naan ñaan bu nangoo sonal borom gox bi dafa génn ci lii rek am benn contrat États-Unis hmm. contrat boo xam ni. ay 6 mois la doon doon ba mu yàgg mu 1 an. Mhm. ba mu yàgg 2 ans. Euh, loolu nag moo ñu tënkoon son bi li muy doon toj fii. kan ngeen amaloon contrat euh, Tony Vaca, lañ ko amaloon benn américain la boo ni moom moo Sénégal euh, ànd grand Massamba Diop bi nga xam ni moom koy tama. Mm. dëkk bi uh-huh. ngi koy bu a baax. tubaab bi bi Sénégal te avant moo yem ñun amoon nañ groupe hip hop yoo xam ni suñu ñëwee dañ leen ñaan ay instrumental la ñuy laaj xam nga wala jàppale leen dañoo bëgg ngeen jàppale ñu mais gox bi dafa ñëw euh, indi euh, beneen façon musique mm-hmm. indi éconting benn instrument joola boo xam ne Casamance la jógee man ma teg samay perki di ko jouer di ci sóol en même temps bi mu gisee loolu nag amatul jàmm mu ne ma sàmb dama am compilation bu may génne États-Unis bu mag. te fecc kan nga woon yow fecc kan nga man si yax man lu na laa woon. man maa ngi nii rek moom moom est-ce que daawul <laughs> tëjul Oscar des vacances sax mbagam yi. <laughs> <laughs> léegi nag bi mu ñu gisee. Hmm. ci la ñu sign bi mu ñu signé jël son yi dem xam nga génn ko ci benn compilation suñu borom def ci jàmm mu mu daal ñu lijjanti ñu daal dem. loolu moo tax gox bi nag dem bi mu demee nag euh, dugg ci beneen géew. Hmm. wall music

lii moo taxoon gox bi mënu woon def nii Sénégal 100 pour cent. Mhm. mais bi ngeen nekkee Amérique est ce que daan ngeen bokk ak ay tête yoo xam ni ñu nit ñi xam lañ ci wàllu musique mondiale. noo Cheikh yow man ñi ma bokkal chaîne ñëpp su ma ko dee lim fi lay fanaan. comme ñan. te te des fois su ma koy wax nit ñi dañ naan est ce que lii dëgg la Kanye West bokk nañ chaîne. Kanye West. bokk nañu moom son. Euh, bokk nañu moom seen. seen wala son. non seen lañ seen ok waaw bokk nañ seen euh, Damien Marley doomu Bob Marley mhm, Damien waaw waaw Damien mhm. euh, ku ci mel ni Ziggy Marley Ziggy bokk nañ seen mhm. euh, ku ci mel ni Fifty ubbi nañ ko tamit Fifty ba Fifty Cent Fifty Cent waaw ubbi nañ ko ku ci mel ni Michael Fenty kooku kooku star bu mag la boo xam ne États-Unis buy jee des sax da naan lii mënul nekk ci te Michael Franti la tudd. Mhm. waaw nekk international nekk star. Mhm. Euh, ku ci mel ni euh, euh, ba ci ba ci Baobab. biñ na leen. Baobab bu Sénégal bu Sénégal. Mhm. parce que ci festival yi festival la ñuy daje. festival yi waaw ci la daje. bu ko defee nag yow da ngay sentir ni waa man man ñii laa war a bokkal seen tey mais nu mu demee nii. ci ñoo xam ni da nga doon toog di leen. te yow yow yow yaa ngi soog a démarré di leen di leen déglu naa leen gis. mu nekk loo xam ni euh, loolu musique moo la ko mën a may euh, Montreal Jazz Fest moom mooy euh, festival bi bi gën a mag Canada boobu jaar nañ fa lu mat ay trois fois. muy Montréal lay am quoi. Montréal Fallou Dieng maa ngi bu baax a baax. Dieng Sala Wende. Mhm. démb fii la toogoon. Mhm. moom it bokk nañ benn salle boo xam ni dañoo joué waat ñun tamit ñu ca Californie. waaw muy lu mag loo xam ne tey mënul toog sax di ko di ko di ko di ko di ko di ko di la ko tegal mhm. est-ce que comprendre nga euh, mu nekk loo xam ne daal sant nañ bu baax a baax a baax a baax te loolu musique moo ko may te gox bi ci loolu la doon la nekkoon di ci dox États-Unis mais mais mais est-ce est ce que demu leen basé wu foofu bàyyi fii parce que bu ngeen bi ngeen demee Amérique en fait ci ci ci la bunt yi gën a ubbeeku macha allah. Mhm. ci ngeen gën a am euh, ouverture ci ngeen gën a am possibilité Euh, liggéey seen musique euh, comme ni ngeen ko bëggee benn deuxièmement daan ngeen ñëw par exemple vacances def 6 mois. Mhm. est-ce que bu ngeen doon ñëw aajowul par exemple indaale benn affaire bu bees comme da ngeen di ñëw vacances 6 mois ngeen def promo bi fii comme gars dañ leen di dañ leen di dañ leen di bàyyi xel di leen namm. base bi mën a des fii nii. waaw pourtant ñoom noonu lañ doon def ñun. loolu moo tax gox bi li desoon ci nopp nit ba léegi ak bët nit ñi. parce que bi ñu defee sama jigéen laay yemuñ ci. danoo ñëw indi son boo xam ne dañ ko def ak ndongolo. ndongolo waaw muy pikin muy morso pikin doon jaar. ñu jógee ci foofu ñëw def benn morso boo xam ne dañ ko remix. mooy morso bi ndongolo doon def ak Youssou euh, ba suñu liggéey. Mm-hmm. Mm-hmm. gox bi sam moo ko def ñëw génnewaat ko fii. Mm-hmm. Euh, génnewaat fii beneen son boo xam ni tamit euh, people are talking na ñu dem nag ba affaire yi gën ñoo tànc nag. waaw temps bi gën a ñàkk. ñu daal ni léegi nag xam nga ne cim réew ne cim réew la te liggéey liggéey la Sénégal dëgg la fa lañ am fa lañ dëgg mais nañ eggali contrat jàmbur yi nga xam ni moom la signé. Mhm. waaw. good ayca Ndione bu ñu ca jógee ñu fàttali ñu ngi boisson bi nga xam ne mooy buuru boisson yi mooy boisson king. Mm. gis ngeen ko nekk na boisson boo xam ne tubaar fa kàll am na huit parfum. Mm-hmm. bii ma tey nii moom mooy euh, fruit rouge tubaar fa kàll bu seddee neex. man nag njoon li ma la wax rek ananas bii daal. moom nga jël temps eh, yi ananas daal fan yi njoon. Ah. Eh, fasanteeg naa ak moom kóllëre koo xam ni <laughs> eh, yaakaar naa après tabaski sax taxul ñu tàqali ko maa ngi moom. man maa ngi ak Morito bi fi mu ne. gis nga bii booy voyage njoon. Ah. nga seeral ko bu mu sedd guy teg ko sa wetu lupp bi nuyu. waaw léeg-léeg oto bi daw boo xaw la laal nga def ni daaj bi seede yàlla. nga seet bi seet bi. nga seet bi tourné boo tourné nii guux ci ñetti guux <laughs> ba ñeent. da ngay beesaat tàq maa tubaab fa yoon yoon wi day neex ci yow te. doo ko yegg gaaw a egg sax mën nga ko bañ a soxla. mi ngi marché yi grande surface yi boutique yi fu ngeen dem da ngeen koy am ñoom noonu la ñu àndee Sénélec. mi ngoog na Sénélec. Nestlé céréales ak mi nga xamee ni. Mhm. Euh, baax na ci euh, xale yi. Nestlé céréales ak xale yi bu ñu amee 6 mois ñu leen koy tàmbalee jox mboolem vitamine bu ñu soxla am na ci euh, Nestlé céréales ak am na fer am na itam calcium am na zinc aajowul yokk meew aajowul yokk suukar Nestlé céréales ak dafa pare ba noppi ni ngeen koy gisee nii am na baam bifidus mu ngoog. Nestlé Céréales ak jamono bii suñu ndaw yaa ngi sur le terrain di leen fekk si ci biir kër yi ak euh, ci biir koñ yi mm-hmm. bu ñuy bu ñu leen fekkee foofu ci biir kër yi ak koñ yi bu ngeen jëndee benn ñu may leen benn ñun ñoo leen yónni ñun waa Nestlé yi nag erreur la mm. waaye xool seen gémmiñ ak gémmiñu gone yi ndax tellement céréales ak neex na neex goo xam ni saa gis mag ñoo xam dañuy yeetal xale yi dem di sàcc céréales ak xale yi leen kenn yaru leen <laughs> xale yi leen leen mag ñi mi ngi doon njoon noonu ñu ànd ak Jolof Chicken nga xam ni toir fakal la ñëpp gis nañu bar yi ko yi mu ibbi fii Sénégal ba fooy mën a dem rek da ngay gis sa Jolof Chicken bu dee dakaar gi di ngi am Jolof Chicken da bëri na ay quartiers yoo xam ne foofu dem gis Jolof Chicken waaye bu fekkente ni si yaa ngi tukkee da ngay gis Jolof Chicken ci yoon wi mais xam nga diggante Bargny ak Rufisque yaa problème parce que diggante Bargny ak Rufisque dafa jege yoon ñu jëloon benn def ko Bargny waa Pikine waa waa waa Rufisque yi dem di xéewloo ju foofu mais waa Rufisque dañu gis ne daal bu ñu egsee waa Bargny dañ leen di wan ne daal fii suñu yëfa xam nga yëfi affaire lu lébu yooyu affaire doon bàjjan yooyu waaw ba yëfi nar a jur ay problème yu nekk ñu ne leen léegi xam lu ñuy def mooy waa ñi am ngeen seen jërëjëf ci kenn léegi nag waa Rufisque dañ leen di ubbil seen jolof ci kënu bopp. ku ne ñu uufal la li nga ku ne ñu uufal la sa jolof ci kënu bopp. jàmm na ñooy. jàmm na ñooy jàmm ndax ay doon bàjjan lañu waroon nu xuloo xeex mbaa ndax ginaar. <laughs> du dëgg jolof ci kan nag jar na ko de. ah jar na jar na lépp loolu. kon ñooñu da ngay xeex ndax ah, jar na cooki. ba génn télé. jar jar na cooki de leer laa la léegi nag Thiès ñoom instant bii nii euh, benn ba fa nekk attanul Thiès ndax Thiès dafa commencé am ginnaaw léegi looloo tax Jolof Chicken daal ni il faut Thiès ñu sampal leen beneen Jolof Chicken boo xam ne day mel ni comme bu Touba bi. Touba ñaari Jolof Chicken la am donc Thiès day am ñaari Jolof Chicken mais nag suñ fa jógee nag bu ne dañ naan bonjour Sénégal ici Gambie Gambie la jëm nag le 20 bii nii incha allah vendredi. ñu ngay wutali Gambie. Hmm. Gambian people. ñu nekkee Serekunda. limal ñëwal ñu nekkee Serekunda. benn Serekunda. yow Gambie rek naa rek nga fa xam. déedéet ñu nekk Bako. waaw ñu nekk. Birkama Birkama. Ah. ñu nekk Sénégambia. Ah. ñu nekk Gambie daal jàppaleen ni samedi euh, aljuma ji incha allah muy ginnaaw suba. Hmm. ci lañ leen di ubbil seen jolof ci kenn ngeen commencé déguster comme waa Sénégal. oh man nag damay xam naa ni jeudi ci ngoon. Ah. laa fas yéene wàcc Gambie. bërset ci al aljuma ji ma ibbi yu Gambie yi. waaw départ Gambie ñibbi si Sénégal. Cheikh loolu nan naa riche. waaw waaw mën naa la invité. non loolu nan laa loolu nañ dem nan dem ubbi. Ah. moom xam ba dama toog. xam nga man ak moom bu jolof ci kër daan ubbi dañuy am ay problème ci eh, ubbi beeg tëj bi. bii du am benn problème alaaj demal sa ñoom. Ah, kon waa Gambie xaar leen ma maa ngi ñëw. ànd ak Viviane. voilà ñoo koy tijji ak Baka ñaax Baka bu fekkee Baka pare na. incha allah donc fa ma yóbbu.

Hold down, uh, hold down, uh, watch where you're going, lot of toxic sick virgin. Hold down, son, hold down, son. All that we need is unity. Huran, Yeah.

huran huran huran huran one love at the stop being so rude I didn't bone you put out I live wet out joy one look at the stop being so rude I didn't bone you put out I live wet out joy oh no mais c'est vrai li dafa neex li dafa neex jolof mais di woon xalaat wala sunu aar mooy sunu rap sunu rap mooy sunu aar gox bi si sa méta fatia lañ du saf saf ndax rap da ngay bi fay wala da ngay One love, get the youth, stop being so rude chicken bowl, you put out, I'll be without joy. Hold on, son, hold on, son. I'm whipping this rhyme like never before, son. Bow down, son, bow down, son. Watch where you're going, lot of that sick virgin. Hold on, son, hold on. faloo man man fu mu nekk di nga rab ma bëgg nag nga nekk nag man maay rab ci xalam ndax dëgg nag fu mu dugg nag mu di la yee laa bëgg nag ndax sa kata ma kata amatul jalo ba mbëgg ma doxatul wala doxatul doxatul li ma mën ci rab li ma bëgg ci rab fàtte li ñu fàtte fàtte ne fàtte la ñu fàtte foo jaar ma dabax la ko foo jaar ma dabax la ko bañu ma ko bara tax la ko tax la ko tax la ko depuis fii daf la ko daf la ko daf la ko gente não deve. Não deve Euh, bi ñu jugee ci titre boobu ak Pikine ak yëpp sénégal yi bi ñu leen gisaatee fii ñëpp kontaan. ñëpp a kontaan man. je pense bi may njëkk seetaan vidéo bi euh, à l'époque 2STV moo doon soog a ubbi. di doon teg son bi ba lu bari bari bari bari. fa laa fa laa mais ñëpp kontaan ngeen ànd ci ak FATA. Eh, El Presidente. El Presidente. macha allah xam naa ne instant bi ñu ci bari ñu ngi ñu ngi fàttaliku uh, yu bari li ñuy wax naan way neexul lim lay fàttalee neex. am na ci ku nekk lim lum lay fàttali. macha allah non man rawatina lim may fàttali sax man. lum lay fàttali. parce que morceau bi mi ngi may fàttali bi may doog a xamante ak sama soxna. ah oui. waaw dama ko doon labat morceau bi dafa tolloo tombé woon ak ma koy labat. nga nopp ko waaw. ma dem gérer ma jox gaa yi gaa yi jox ma rendez-vous. Ah. New York City man leen waa baax na dinaa teel a ñëw. ma dem kër soxna si soxna jaara ma dem seen kër toog xam nga rek waxtaan bi neex. waxtaan bi neex doo gis heure bi. nan loolu naan sànni jaaxal ma ñu may defal ay teraanga ba heure ba jot ma ne ma ne xaaral ma ñëw. xool heure bi gars yi ñëw ba bakka yow xanaa dañ ñuy fontooy. mbëggee na ko mais bakka foo a ngi taxaw ñu xaar man leen maa nga ñëw maa nga ñëw maa nga ñëw. jàpp ci loxo soxna si daw moom minute bu nekk lii bi mi ngi fa nekk rek lu ah. ma déggee morceau bi sama xel sama maan day dem loolu. ci soxna jaara te xam naa bi ngay. ci bi a wan ni a di garaaw <laughs> eh, eh, eh, bi fekk na ma xam ni man jàmbaar laa. tey sax non non non sama na ba mooy loolu. waaw xam nga xam nga début début mbëggeel moo mel noonu. mais mais mais assisté clip kuy kaaf ngay doon kuy kaaf di reculer ndoko ndoko tur yooyu ngay def. njoon page officielle bu Sen TV ñu nuyu leen. internet yi nga xam ne toile focale ñuy topp ci page officielle bu Sen TV. Mm. wax leen gën a partagé gën a commenté bàyyi sa numéro téléphone. waxtu nekk mën nañ la boolee ci teraanga yi xéew li ñuy joxe xam naa du yàgg ci ay fan. Euh, faw ñu jël ci suñu boisson yi di ko di ci maye. faw ñu jël ci suñu euh, déodorant laak yi di ci maye. sarelak yi na sere sarelak faw ñu jël ci di maye. tamit faw ñu jël tamit ci euh, bon jolof chicken yi di loolu lépp dina ñëw incha allahu taala mais gën a commenté gën a partagé te bàyyi seen i numéro téléphone ñu mën leen boole ci euh, yëf yi mais Bakka dañu dem ba mu yàgg ñu jékki-jékki gis Bakka daal di jël carrière solo. waaw beru carrément nag. waaw nag vraiment gars yi samay copain ngeen ànd nañ ba fii. Mm-hmm. xaw ma yéen ñaar xaw ma say boy lañ xaw ma. samay grand lañ. say grand lañ. samay grand nga jékki-jékki ñoom Faté ak. ñoom Jazz. Jazz waaw ah, ñoom Alaaji Samba Diarra. waaw man man ban année nag nga jékki-jékki gis ne yow vraiment. Euh, parce que benn instant c'est vrai que ni bokk ngeen di liggéey mais déplacement yi dootul mën a bokk. Mhm. parce que benn instant da ngeen dem ba benn instant déplacement yi dootul bokk. yow li ngay liggéey li kii di liggéey ak li keneen di liggéey vacances yi mën naa bañ a taqaloo. Mhm. parce que Amérique mënoo fa nekk rek di def musique musique musique. Mhm. il faut nga boole musique ak leneen deux casquettes nga mën a pour mën cee génn. donc ngeen tollu foo xam ne rek danga dem ba gis ne yow mii kat war ngaa mën ne jazz. falilahi alhamdi war a wax. ñoom tas nañ de avant Bakka di def carrière solo. Mm. non non jërë man maa fa njëkk a génn. ma mm. génnee maa fa njëkk génn. ci euh, bi ma génnee. <laughs> bi ma génnee après. ci la euh, ci la laa fa bàyyi jazz ak pàate. ñoom ñaar euh, ñoom ñaar ak sana sana moom instrument léger en même temps day day këraale quoi. Euh, ma bàyyi leen fa parce que nag euh, li tax ma def loolu Cheikh comme sa question bi mhm. euh, li may woy naan xar day weesu mbote mhm. te dafa am loo xam ne da dem ba sentir ni li duuf ci nag bi xalitul ci cin li te bakkañaa dafa lu bari lu nekk ci moom may doomu géwél nag comme ni ma koy waxee te deret géwél bu nekkee ci yow na nga xam rek am na luy nelaw ci da nga koy yeewul baa nga bakk mu biddanti mhm. bi ma demee ba ci biir nag ci laa waxtaan ak ñoom def sama premier single mi bëgg naa lool dama ko enregistré woo dama ko indi ba ci ñoom ñu ne lii laa def bëgg koo génne ñu yaa koy rafetlu mhm. morceau bi tamit euh, jékki-jékki rek claque xaw ah yi carton grand sama dafa grand carton yi mais gox bi euh, bi nga fa nekkee ba nii nii nii nii nii man mënuma am beneen liggéey bu dul aar seex man aar moo may parce que moom nga bëgg moom laa bëgg parce que bi ma nekk xale euh, li ma doon faral di wax rek te boobu léegi loolu nit ñi di gis ñi ma xam dëgg mhm. bu ma masaan dugal métier dama naan patron bi ñëw naa di liggéey si dinaa liggéey si mais man lii du lu ma bëgg. Uh-huh. waaw man aar laa bëgg. waykat laa damay damay way te ñaanal ma ci ma wër ci àdduna bu ko defee mun ma waa baax na. Uh-huh. mais da ngay liggéey ba wàcc jot nga dem ñibbi. Euh, yàgg nañ maa ci garage ndax lan du ma xaar mandat par vendredi ñu jox ma te xaalis dafa neex ci xool. Uh-huh. mais daaw pare rek daw. Ah, damay pare rek boobu mécanicien nga woon waaw mécanicien laa woon. bu ko defee Sénégal Sénégal fii waaw. bu ko defee dañ la moo tax yow xaaroo. xaalis bi ñu la bataleeg booy ma non dama dem dama doon bañ a tardé sama répétition ñu ni kii nag gëm na li wax parce que xaalis boo fi bàyyi dem sa yoon. Mhm. loolu mooy wan ni yow gëm nga. am na loo bëgg am nga loo bëgg. Euh, te ba léegi noonu lay doxee ma dem ba temps bi mayatuma ko même États-Unis euh, dem naa ba benn ins ma jéem a essayé ba xam dinaa mën a boole musique ak liggéey mais àndul. dan ma dàq ñaar yoon laa absenté nit ma bàkkal lii mënul nekk man leen kon nag nañ ñaanalante. américain bi ni leen mënul nekk waaw mënul nekk eh, ma téye sama musique nag continué ci sama art. fëggaat sama bopu génne sama bopu teug sabar. Ah, tama génne sama bopu teugum tama. waaw sama bopu teug jembe hmm? génne sama bopu way dal li doyna mo li warna ma meuna sama aduna teugum tama geeg sabar geeg way. teugum tama ak sabar ak way. wa dara dara de mom deug rek lay wax. waaw ma ma chambar ko nag mu ma ma allah tubaab bari kàlla. da ciy gis sa bopp ma ciy gis mais bi nga sabar tama ak instrument yooyu noonu

après Ibou Ndour ni ma continuer nga tëgg ak Assane. tournée boobu waaw. attan nga rapidité Assane Seck. Washington. ma ma ànd ak Assane tëgg programme bi. ñu ñëwaat ñu yor ko ak ak rab di def. biir waaw mais mais moo doxal damaa wéeru ci ginnaaw rek jàppal ko mbax rek mbax laa ko jàppal rek. <laughs> mbax laa ko des fois ma bësal ma bësal ko ci xiin bi. waaw après grand Birane Sarr tamit moom moo kii woon contrat boobu. grand ni ma bakka ñu yor ko tamit bëgg naa nga jouer. ma daal di jouer def première partie continuer ñoom soirée bi muy loolu. cool. Mm-hmm. ci Pape Diouf la ma dal ma ànd ceeg ñoom. Euh, di kontaan Wally seek moom bi mu fa ñëwee bon daf maa woo ci son bi ma ñëw bëf ak moom Maria Sine may sa biige muy bu baax. Hmm. mu jëkk di teraanga jox ma vraiment wax wax du rafet. Euh, wax waa New York City neen dëgg la bakka fii la nekk mais est-ce xam ngeen kii. dëgg la neen ak a mën a woy. waaw ñàkk fi ñaan nag euh, ñoom ñëpp ñu àndandoo di ma wax wax ju baax. Mhm. di ma wax ni ma da nga am place Sénégal boo ko jëlee boo ko jëlul. Mhm. parce que yaa moom loolu fii. bi carrière euh, solo bi nga ko commencé son bi nga njëkk a génn tubaar fa kàll. Kan moo nekk nii. génn bi Sénégal yëpp bëgg ko dëgg yàlla. xale yi di ko fayantoo. xale yi xale yi lu ñu wayantoo dëgg la. kaay wax ko sama yaay dafa garaaw. te amul Yeah. So ci Bakanya, il a une voix exceptionnelle mi ngi noonu euh, way bi ba tey am ci ko comme li nga wax gaa ñu bari lañ doon à l'époque ah, <laughs> ah ku ci bëgg bëggal sa waay sax loolu nga koy wax baa nga bëgg sa waay ñëw def farata loolu nga koy wax kaay wax ko sama yaay yaay yaay macha allah am na ci ba dañ koy son bi sa carrière solo fii la tàmbalee fii la tambalé, fii la tàmbalee macha allah mhm. ba mu tàmbalee fii nag euh, morceau bi tamit ñëw def def Sénégal bëgg ko Euh, morceau bi li ma ci gën a neex mooy yaay yi ñoo ko gën a bëgg. Mhm. waaw waaw c'est vrai parce que ci laa waaw ci la samay maanaam yaay yi ma bëgg yëpp. Euh, di ma di ma di ma bëggee ci morceau bi la ma gën a. <laughs> la ma gën a leeree yaay yi waaw. ba nga yaay yaay yaay ngay wax noonu. waaw yaay yi waaw. yaay yi soo yi soo yi soo bii Sane yee ko gënoon bëgg de nisaaw yi. <laughs> ñi nga ñi nga xam ne dañoo am ñu ñu bëggoon te gaañ yéex. ñoon yow ñoon dafa mel ni sa dégg daara ci. <laughs> ah son ñoo gënoon bëgg. maire yëpp gënoon a bëgg. waaw waaw parce que son bi nisaawu yëpp ko bëgg. parce que waaw nisaawu dañ koo bëgg mais yaay xam naa sama yaay yaay dañ ciy dégg. Ah. moo tax ñu ñu morso bi. amuñu ak farata bi quoi kaay wax ko sama yaay. mais misaawoo nag. Ah. ñoom li leen ci gën a neex mooy. nit ki boo ko bëggee waaw yaa nit ki boo ko bëggee lu ko neex nga koy defal. kon kaay wax ko sama yaay yaay. maa ngi nuyu baax a baax suma rakk ah. Maymuna Zahra Mbodj madame Diallo kooku suma rakk la. ndeysaan ñu ci nuyu baax a baax tamit Fatou Sall suñu jigéen bu baax bu nekkee foofu ca euh, Suède di nuyu baax a baax Alaaji Njàmbe Géy ma ca Suède ak suñu yaay ñu leen di kontaanee bu baax a baax waaye tamit euh, kii di euh, Masek mi ngi ñuy seetaan ci euh, télé bi ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax ak ñi ne ci mm-hmm. page officielle bu Sen bi Ndione. Mm-hmm. yow Bakka fi mu toll nii daal da dalay dalay suufu te dégluwoo ko <laughs> te ci son bi am na ci foo xam ne dégg naa foo xam ne son bi dafa dem bu mu yàgg nga ni Ah, waaw xaw ma loolu. waaw lu waral xaw ma ban yëg-yëg la yooyu yooyu yooyu dégg nañ ko ci son bi. waaw yooyu ay filimu way la seet. ay filimu way la. waaw ay cas ak yooyu la. yoo xam dalay dab ci biir sound bi quoi mais son bi du deux mille deux mille douze treize quatorze diggante boobu. waaw. 14 la 2014. Hmm. waaw 2014 la génn. <laughs> waaw génn rek lëmbe nag kenn xamul ko way hmm. boobu mag ma fekk États-Unis ma nekkaat ay bagages. Hmm. Euh, ñii naan kee ka way ñii naan kee ka way. ñuy werante waaw ñuy werante. Euh, ba tax ma def ko vidéo boo xam ne dama ne xaaral ma vidéo ko taf taf rek bu ko defee ñu xam ni Bakaña moo way son bi mhm. waaw mais son bi moom du doon rajaxee kër dem rek c'est vrai waaw mais mais mais parce parce que yéen d'habitude benn problème boobu ngeen am da ngeen di génnee benn it mais promo bi ci war def loolu moo leen dal daloon na Bakane Seck Bakane Seck am na ay son yu bëri yu mu génne yoo xam ne xëy na sax ñoo gënoon fës Maulana mhm. mais bu mu génnee album Maulana ba toog def def def promotion am na benn njariñ ci gis mais léegi yéen déjà loolu mooy seen problème da ngeen di génn benn son rek après bàyyi ko xar waaw ah man bopp su ma génnee son def promotion. Mhm. des fois sama contrat mooy jot si yax ma dellu parce que ci ay université ngay signé yor seen contrat yoo xam ni fa ngay def ay spectacle mhm. yaa ngi dégg ak yenn événement yi demee noonu ba pare aussi ma yor sama njaboot États-Unis loolu moo tax. damay def promotion bi yàgg ma bàyyi ko fi dem États-Unis mais li may ci li may nekk bu jeexee rek damay ñëw mais son bi des fois son defal boppam promotion. dëgg la dëgg dugg fu nekk nga koy dégg fu ne. Mm-hmm. daa am son yoo xam ni loolu suñu borom dañuy jaay seen bopp quoi. waaw day jaay boppam morso bëgg naa loolu bi noonu la demee te pourtant moom laa gën a moom laa gën a defee di promotion. te son bi dafa xalewee. Mm-hmm. son bi moo xa way bi moo xalewee quoi. waaw way bi dafa yomb dafa dafa yomb a waye. dafa dafa yomb a waye quoi moo toll foofu. Euh, bi ma ko njëkk a enregistré ba pare ñu bëri wax na ma loolu nee na ma Baka parole yi est-ce que duñ ko tool yi wala ñu gën ko kii man leen non day sonal mag ñi day sonal mag ñi sonal xale yi bi ma ñëwee laay jàng tamit grand laay maa koy nuyu loolu wax dan bàyyi bàyyi ko te da njoon en album album uh-huh. son nga gën a ñàkkal fayda mhm. bi ngeen di sa enregistré di ko ñàkkal fayda boobu mooy doon parce que des fois day toll foo xam soxlawul lu jafe mhm. looloo fay location ndox courant. <laughs> ak wayu compli abonnement yi ñëw. boru boru boutique boutique mbedd yi nga bëgg a këru benn texte boo xam ni. doo ko day doy waar day doy waar day ah, donc des fois yombal ko. day xaw a gën a baax. na yomb mais na am njëriñ. seex ah. dafa am solo. wooy mën naa yomb mais am njëriñ lool nag. ñun ndaw ñi loolu lañu war a bàyyi xel. suñuy woy nañ koy yombal waaye nañ ci def njëriñ bu dee ñeenti kàddu sax na doon kàddu goo xam ne bu ko Cheikh Sarr téye lii lii ëpp na lii moo ci tegoo ci ñeenti ñeenti kàddu yooyu bu ma ci tegoo rek dina mën a yóbbu fu bari dina ma jëriñ lu bari mais mais am euh, euh, euh, kii di Bakka nga xam ne deretu géwél mu ngi ci moom ak dégg mi ci moom mm-hmm. lan moo tax Bakka boobu ba léegi ni mënul génnee benn son boo xam ni Euh, dina am mbalax pur et dur bu ñu wax mbalax dëgg dëgg nga xam ni li da ko jeg ba pare way comme ni ngay woyee way ndaanaan yi waaw euh, parce que way ndaanaan noonu nga ko mënee tamit de comme yi gars yi wax na nan ay arama nga xaw ma des ñoo des cabaa nga <laughs> septième gaar xaw ma yooyu noonu waaw noonu laa ko fesee noonu laa ko fesee dellu mos mais moo tax boobu ba léegi nii wane woo facette boobu Cheikh euh, dafa am loo xam ni nit ñi mhm. Euh, ni nga leen koy bëgg a joxee mhm. sa temps bu la ko mayul rek après mooy loolu mhm. mais def naa ko sama jigéen laay mhm. bi ma woyoon ci gox bi bi ma koy remix mbalax bi euh, dur laa ko def la dañ laa ko def ba pare lépp ko waaw mais xam nga mais li Cheikh di wax diggante mbaar mbëfër njolli yi ngeen di wax ci note ay octave ak ay yooyu noonu waaw moom xam na fi waxee mais moo ngi ci doo far yoo ñaala gay naaga yoogo yooyu noonu <laughs> yooyu baax yooyu da ko man man gis naa la foo ko defee waaw dama koy def dama koy def mais day am morceau yoo xam ni hmm. day laaj loolu am morceau yoo xam ne du laaj loolu hmm. am na benn morceau bu bees bu ma génnee di sargal bàyyi ci àdduna bi yëpp hmm. waaw tuddee ko sargal bàyyi boo ko dégloo di nga xam ne baka morceau bi pur dur la ci def sama jigéen laay bi fin bi fa ma ko ndëj boo ko xoolee xam ne doomu géwél dëgg mooy way Seydina Mohamed di nga xam ne tey way naa ko benn morceau euh, nga xam ni morceau boobu Sénégal gépp d'accord ni morceau bi moom fu ne lay laal fu ne. mais ba ba léegi nii euh, Fario Niala Guèye naa ko yow xam naa kii dugg ngewel dëggantaan. parce que dama ni am na benn instant. am yaay. waaw yaay na ana yonent ba. waaw mais foofu nee naa ko baa nga yirim ngoone maa soosa Ali Baba anda Mali gànna fa gàtt. Ah. waa Cheikh yow xam bi sow yorante bi ni ko gars yi kut kut goo ngay dégg noonu xiin boo kii euh, xiin go euh, guy ñëw ci suuf tar la ga tara gi ca uloon nga ñëwaat xala tas ki dit bu daal daal mbar la ba cee yooyu noonu nag far yàlla far yow xaw ma ñaalo ngay naa ko yow <laughs> xam naa li nekk ci fa mu génne mosu yaa ngi ñëw parce que des fois nag euh, am na ay événement yoo xam ne dama koy dégg ay mariage yu may def ak yooyu mhm. foofu seex ba mu fa fekkee ah, du bakka xanaa xanaa ay mariage Amérique ci Sénégal gi gitu. Sénégal Sénégal gi am na mariage yooyu iya, iya, def barki yeneen tubi dan may woni ma bakaña yow ya, ya la man ma bëgg nga tëggal ma sama mariage nga ñëw tëgg traditionnel may indi sama orchestre traditionnel ngay tëgg mo bak bak borom xew bi wax fi borom xew bi ci jub mu bokk mais yuxul ba ci far benn benn la koy yow ma xol ba non ali man doon yow foog ma wala foog ma wala loo xam ne yow mais defal ma loolu ma sampal la sama orchestre mais tay borom de kii di ci man dama bëgg man dama bëgg far yow far yow ñaala ngay naago yow far yow lee wana gay naa go daan jël Cheikh Sarr lay woyal maa ngi alma junni kaay li ni bàkkee doomi garmi yaa ngi ci yow ñëwaaleel far yoo leey far yoo leey la gay naa go daan jël li ni bàkkee doomi garmi yaa ngi ci yow koo koy Cheikh Sarr déggal Saaliw baa ngi nii borom jurul digal lol ah borom jurul borom jàppandal borom jowan ga ca xey ga waaw koku moy borom yermande tay la lay wel Serigne saliw ew degal lol khadimul mustafa moy bayam cëy balay sa buri Serigne Mbàkke ak maram rakima Mamor Jaara rakki Jaara rakki Mamor jaar serigne Cerno Ibrahim Mbàkke ndaamal la ca daaru maa ngi bëggee borom daaru ay way seex ma di géwél bir hmm. soso se ngay sama yaay ba nga yirim go néeg ma soose Ali Baba Anta Mali ma bi moy farma samba sa neex sa pen mbo jere matar bon koy kooku mbuus ña ngay baayam ma nga aldaraame weteli sérif yaa man maa di biir bu la neexee ni ma gàlle gàlle ngaay ñang hmm. gàlle mi ci jawaaro ci yaasin kumba njoogu mënu mbarandal ndombay tànk yi taxu ko ñaaw say na cana bandam mbaaw ma juuf kuli borom jàllo mi ci barsin asanay sama baay su ma neexee na ñangi biran maane biran mane jeng sala fasala gede marco marko di biran jonggo jongo may tuube eh. nday mari njaay gawloy sama yaay mo bokk soso mo bokk soso ñang benn ñaari lañu am jabba sala jabba ah ak awa sek mbaay njengay seni yaay ma awan jai seni yaay ah Ndeye Mary Ndiaye seen yaay waaye sosoy seen yaay. ba nga yirim ngoo nekk maa soose Ali yaa ma wutal baay bu baax. gàll mi ci jawaar. ah yuxuwuloo. onkuloo. laajoo la aw kookoy Assane Niang. baay booyi naaru ndey faale. ah. naaru ndey faali ñang galle kookoy baayu mati galle kookoy baayu pamataar ak yeex gay ñaak mëgey ñaa ose ezek ibra ñaa karim kookoy baayu baka ñaa ñang baalo seexoo saare hmm. fii géwél bi fu baax baka ña nga bokkal maa la wax loolu fii ci ndakaaru wax ma noo ko bëggeeg noo ko bëggeeg noo ko sentiré laa la koy defalee kookooy bakkañaa waa seex ñoon gis nga c'est vrai ndaanaan la beneen talent la boo xam ne c'est c'est c'est c'est xam ko mm-hmm. xam ni euh, doomu géwél bi mu doon ndaanaan la euh, euh, macha allah daf koy dund mm-hmm. te mën na ci itam wallaay mën na ci xam naa xam naa faw ma tegal gox bi système seen daja ba ñu dajoon ak ndongoloo xam naa leen fii fi ngeen juddoo fii laa juddoo. xaw ma teg ko. ndeysaan mu ngi noonu ñuy fàttaliwaat ne. Ah. Cheikh bu ma fàttee tegal bàyyi. dinaa la ko tegal sargal bàyyi. sargal bàyyi bu ma ko fàttee tegal. ñun dañoo dese dañoo dese yu bëri moo tax may may sakkanal. dëgg la dama même dama war a ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga bàkkal ma ko waaw damay ñëw ci yonent bi sallallahu nga bàkkal ma ko. waaw dañuy fàttali suñu mbokk yi internet yi nga xam ne ñu ñuy sitaan ci page officielle bu Sen TV ñu gën a partagé gën a commenté bàyyi seen numéro téléphone waxtu nekk mën nañ bokk ci teraanga yi leen di séddale waaye tamit ñu fàttali leen ba ci gu tey noonu la ñu ànd ak TDK mi nga xam ne moom moo ñu indil déodorant like waaye tamit Nestlé Cerelac bi nga xam ne gën na ci xale yi am 6 ba 8 mois Jolof Chicken mi nga xam ni toir vakal la tasaare na ay am fii ci Sénégal aljuma ji la ñuy ubbi yu Gambie yi kon waa Gambie xaar leen ñu nuyu bu baax baax a baax a baax tubaab mi ngi ñuy seetaanee ca Gambie Euh, euh, waaye buur boisson yi di boisson king moom it euh, tubaar fakal la ànd nañoo ak moom ci bëccëgu tey mu nekk boisson boo xam ne am na huit parfum noonee tamit la ñu àndee ak Free Money ci yoon nekk jot xaalis fay say facture courant ndox abonnement TNT ba ci canal ñooñu la ñaandal ñu fàttali suñu auditeurs yi ak téléspectateurs yi Bakagna la ñu dalal bu gox bi système Bakagna mi nga xam ne jamono ji mu ngi ci carrière solo bu yéeme boo xam ne tubaar buñ ko bàyyee xel dana dana tëjum réew waaw bakka lii dama la ci mayu su lëf rek après ma dogg ñëw nag ci Seydina Mohamed bi waaw waaw su su su su baaxee rek day ndeysaan su baaxee rek muy daje daje bi nga xam ni mooy diggante ndongolu ak euh, gox bi système mu nekkoon daje boo xam ni toor fa kenn ku ne doon fesal sa cofeel ana naa ñu ñëw bakka ñaa mang ca woon gox bi si seen ndongolo xamoon naa ni dinañ jokkoo laahu def dëkku bànneex boo gis yoon ba day tiis ñeme ko soog a dem soo ko ñemewul du dem bay toogee wooy dina baax gis dungu man gëm naa ne dina baax loolu lu ñu ndax lépp lépp ji bigin ñu ñëfe booy dina ñëw jàpp te wa bàyye taxe yegg fa nga jëm booy jàpp leen wooy lay dina ko ca téere ya sa jëm jëy jëmal jëm yee jeexal nga téere ya demal uuf ci wetu nabi raw laj la juwaanu nabi des na bàyyi xel ci bikin naa ko def bi ci ma ca ndobin ramatu da cay naa wa waaye kenn du ñu jege yàlla tere tere kenn du ñu raw tere tere ndongo yaa ko tere tere guddi guddi lëndëm doon nga làpp ci biir lëndëm sa bàmmeel du lënd du lëndëm leer doo gis lëndëm mukk mukk doo gis pëndëm nga ni man ki moo ko leer na Sénégal ndongo ñu man waaw yaa seede wóor na Afrika pikin na ndeysaan di ko may moo ñang balo ak bëgg ndongolo ñang dina la jege di ko may baylaat baylaat jaañ ndeysaan bët yam lay xoole treja mi sori la lool nga ne ci xelam يا fi في بايانجي في رقية كأنو bilaay teg ci bët su ma xel xool seede lu ñuy ñaar mooy dox ci sa barke indi aw li nga teg ci laaj bi gis ko bég dafa tas si na ndeer jàmbaar dem na jàmbaar wëy na meekat xare bi jeexul bilaay walaay dafay soog nga tàmbali fu ñu teg suñu baat yi teg la fa ubbi xam suñu xol yi faj la fa fukki at fois trois mel at fi dara dul dara nga daral fa dara ba pigin ginnaaw raay tey doon dara gis nga tey moo gën demin jamaa wax du gën tooni foo karaa foo borom bi yërëm la Sénégal moo bég ci yow dem dey mais nag mel ni ma. yéen a ngi fi maa ngi fi waaye. xamu leen ma woon xamoo leen ma woon. ci dina la jege du weesu wax ju neex jaag ba dem lay xoolee ñu sori la lool nga ne ci xelam a xolam noonu nga mel si ñu yéen waa gox bi jàpp leen bu leen bàyyee xamuma leen woon. ndeysaan. déggal lii. ndeysaan. ñoom gox bi système ginnaaw. raay dinañ jokkoo lépp lépp di bigin Baka Nyam, back again. I like this. mu son boo xam ne torfakal son bu euh, waa Pikine yëpp képp kuy banlieue kontaanoon nga ci waay tamit. melomaan yi kontaanoon ci daje bi Baka bés bi nga xëyee yow ñu ne la ndongoloo génn àdduna ba njëgi nga amoon. si Cheikh loolu kay. yéeme woon na. Sénégal la la fekk wala Amérique. non États-Unis la ñu fekk États-Unis la mais jour boobu noonu tubaab yi nga xam ni danoo àndoon ci tournée bi nekkoon ñoom ñëpp danoo xam ni ñii àndoon nañu. tournée la leen fekk tournée la euh, ñëpp ne ñii am na lu leen dal quoi. parce que ñii seen caxasoo bi ku nekk di yuuxu nii di kii après expliqué leen quoi. Oh. kan kan moo génnaat bi. mu nekkoon lu métti nag nekkoon jour boobu bis boo xam ne ñëpp a jaxasoo. àdduna yëpp bis bu diis. kenn xamul la da ngay dem mu yàgg na lii man xaw ma lan la ko waaw mu metti nag waaye nag euh, li mu am euh, dalal xel yi. seede yi dalal xel yi. àdduna ni ñu ko wuysee dalal xel yi ñu delloowaat lépp ci loxo yàlla suñu borom mais mais mais doyoon na waat lool. c'est vrai que nit dund na cent ans te amul li mu am. Eh, oh. walaay de cent ans ci métier te amul li mu am. Mm-hmm. non yéemoo na Cheikh. ayca mi ngi noonu ñu fàttaliwaat ñu ne ci page officielle bu Sen TV gën a partagé gën a commenté bàyyi sa numéro téléphone waxtu nekk mën ngaa bokk ci xéwli ay ci ñu fàttali leen ba ci gub tey ñu ngi ànd ak jolof ci kan mi nga xam ni tubaar fakal poche yi nga xam ne dese woon na ko wala bokk mu ibboon ay barab tey barab yooyu attanul ña fa nekk ñu ibbiwaat leen yeneen barab looloo dal diggante euh, Euh, foofu di Bargny ak Rufisque bi ñu ubbi Bargny attanul Bargny attan Rufisque dañu obligé di ubbi beneen boo xam dañ ko ibbi biir Rufisque bu ñu jógee foofu ci Rufisque dañuy dem Thiès kaay moom it benn lañ fa ubbi waaye ginnaaw Thiès dafa ginnaawee te attanul ginnaaw Thiès moo tax ñu ubbiwaat beneen biir Thiès kon waa cees di ngeen amaat beneen jolof ci kan bu ñu fa jógee aljuma ji incha allah ñu ngi dëgmal dëkku aadama Baro mu di Gambie waa Gambie xaar leen danañ leen ubbil seen i jolof ci kan ci aljuma ji ànd ceeg euh, ki nga xam ne mooy ambassadrice jolof ci kan mu di Viviane Chidid équipe bu jolof ci kan danañ fa teew ñu fàttali leen yéen ñu ubbi euh, foofu ca Gambie nag dañ ko fa ibbi waaye doomi sénégalais moo ko fa ibbi waaye doomi Gambie ñoo fay liggéey foo ñu leeral loolu euh, dañ ko fa ibbi doomi sénégalais moo ko ibbi Gambie waaye doomi Gambie fay liggéey indi nañ équipe bi fii Gambie Sénégal defal leen formation ba ñu delluwaat Gambie pour liggéey fi c'est-à-dire que yéen ñuy ibbi Gambie waa Gambie fay liggéey doomi Sénégal moo koy ibbi Mauritanie waaye waa Mauritanie fay liggéey doomi Sénégal moo koy ibbi Guinée waaye waa Guinée fay liggéey c'est-à-dire que gox bu ñu dem rek dañuy dooleel waa ñu fa nekk loolu la ñu euh, jolof ci kan defal incha allah ci at mi loolu loolu loolu la macha allah faites le plein de saveur chez nous. Euh, mhm. loolu mooy jolof ci kan. Mhm. bu ngeen ñëwee xam ni euh, ginaar macha allah bari na te bokkul. Mhm. jolof ci kan nag moo mën ci ginaar. loolu leer na ku weddi laajal Adja Jaxate. Adja Jaxate. <laughs> mbaa day yéex yi comme ni nga koy waxee. <laughs> moom moom moom moom xam na ne jolof ci gën a saf ba ca yax ya <laughs> amu ci ngor ay ja Baka ñu ñëw ci ci ñu ñëw ci way wi nga xam ne da nga ko way Seydouna Mohamed marché dama bëgg nag ma ko dama koy bàkkal woyoon ma ko ba mu jeex ma toppal la bàkk yi waaw toppal ma bàkk yi Baka ñaa loolu daf bay neex marché bi bàkk yi nga bëgg mu toppal aca ay ja sallallahu alayhi wa sallam ki ñu gën ndeysaan Mouhamed yaa leen doon xartaba no tatit di teg yaa leen man man dama tey yaa rasulillahi wa xayrul anbiyaa ko ñëwaat ci bàkk yi kaas mbax bin bre. non ñoom dama ko arrêté. <laughs> Babacar Seck moom morceau bi Seck lii waa jaamu la. non Babacar Seck li mu bàkk fi mënatu ko. lii ma nekkoon anniversaire am yal na yàlla guddal fan. non bàkk yi mën na maa rey. ah ndeysaan. ayca Seck. bàkk ñëwaatal ci bàkk yi. ayca. ndeysaan. yaa gën ki ñu gën. wax leen yaa rasulallah Muhammad yaa leen doon bàkkal rekin nga ja yaa leen man yaa rasulallah xayrul anbiyaa bàkkal taas mbax bim tre kinde takin durugi durugi durugi na durugi na takin ya bak bim baax Soy loolu ah gituru gituru kiis kiis kiis tamit. Mohamed yaa leen gën. Daka dina ko sax ci bitim te. Yaa leen man. Ah mbar la ba tey. Waaw. Ya Rasulillahi. Waaw waaw. Xayrul anbiya. Cheikh yaa ngi gaañ de. Tas bax timbre. Waaye guddi lool. Tata ki tata ki jabax kinde jabax rabax kinde jabax kinde. Mbar la ba tey. Géej gi tereñ la géej géej vrai vrai. rek it tak ya gagne dañoo daw waaw ya allah ya allah ngi la ngay Cevir ndeysaan bakkaña mi ngi nii tar fa kàlla way rasulilaay xatma nabi imaamul mursalina borom bareeru or ba ca midin en tout cas réew mi bëgg nañ suma xarit Cheikh Gueye bëgg a bàmm nee na ma bàkk yi ci moom da koy réeral <laughs> bàkk yi dafa garaaw de daa diis Mansour Diop mi mi ci seen TV nii morse bi heure mu ko tegee day yuuxu dalal ma man morse bi bàkk yi laa àdduna non Cheikh Sarr bàkk yi jour bi nga koy dugal studio man damaa mujj daw. non dafa garaaw. xam nga jërë nag dañoo saay saay. damaa mujj daw jërë doon jërë doonoo doy waar. waaw dañoo doy waar ci dëkk moom. ba pare mu ànd ceeg sama ndox. Mhm. ñoom ñaar ñu mel nii. ñaari gaynde yu xeex. mi ngi noonu nag. man leen nag man lii attanu ko xaaral ma génn ci benn bés kanam. ma doog ñëwaat. des fois noonu lay def noonu lay def est-ce que est-ce que fi mu toll nii euh, Baka dafa dafa am benn single bu bees boo xam ne génne na ko. waaw wala wala wala album bu muy wàcc. boo xam ni. Euh, mhm. single bu bees la. boo xam ni daanaka génn mi ngi ci YouTube bi. Mhm. ñu ngi koy bëggee bu baax nit ñi ngi koy cons. Euh, ñu war a nekk ci clip bi nii nii nii nii. nu mu tudd nu mu tudd. kooku sargal bàyyi laa ko tuddee. sargal bàyyi. parce que nag yaay rek la ñuy woy bàyyi bàyyi. waaw moo tax ma ni bu leen gërëm ki xam bi taal bi te ki tax a ñu toog. dëgg la papa yi danoo dee ba dee daal. te papa yee ju tànnal yaay yaay yi ñuy woy. papa yee indi yaay. léegi nag man ma ni damay sargal bàyyi. sargal gi ma leen sargal mooy dama leen di way woy leen fa woy wa safe mm-hmm. woy leen fa woy wa neexe mm-hmm. woy leen li làqu ci ñoom yëpp ñu mën koo génne ngir bégal bàyyi mm-hmm. te nag bu nu fàtta ni barke bàyyi la barke yi barke mi ngi ci bàyyi war wërsëg ndey barke bàyyi moo tax sama génération bi bu nuy fooyee barke bàyyi nan koy jël balaa mooy yéex dégg naa dëgg dafa am solo seex dafa gis ki yor lu dul jeex ndeysaan di téeli téeli ak moom rek dëgg la ba mu yàgg ngeen ko waaye nu mu demee nii du mën a xam li mu lay wax dëgg la barke bi moo des nañ jël suñuy barke bàyyi balaa moo yéex. wërsëg ndey barke baay. maa loolu daa mel ni. wërsëg ndey barke baay Samba. dëgg la. daa bëgg a dugg de. Faali moo bëgg a dugg. Faali. Faali waaw waaw Faali waay. Faali morceau bi da koy daaneel. bu fekkee pare na yow jël ko rek Faali. Faali bëgg a dugg xaaral ma xool ko allo Faali. yegg ko ci micro bi. Faali Massamba na nga def. maa ngi nii. ne ko mi ngi en direct. yaa ngi en direct de. waaw maa ngi ne en direct Cheikh Sarr dafa ne ma woon ma dugg. déggal loolu. waaw Faly waay. Faly ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg yow waxal rek. Faly waxal rek yow. waa Cheikh Sarr. ba nga waxal kan mooy Faly. Faly mii. Uh-huh. xam nga dañ naan Waly Seck am na moom uh-huh. uh, yi. ñoom Youssou Ndour. Youssou Ndour am nañ Ngoné Ndour am Ngoné Ndour. Uh-huh. man ma am Faly. ndeysaan dëgg la kii du nelaw ndax man. ndeysaan. mënuma wax sax ci moom nag. Faly dama lay bàyyi nga nuyoo doo ko wax. allo waa salaamaaleykum Cheikh Sarr. waa Faly waay. <laughs> Ah. waaw. Faly da ngay bàyyi télé beeg bi nga wax direct. ne Fall yi. Fall dafa mel day déglu. waaw Fall Fall yi day déglu rajo léegi léegi. léegi télé beeg ci nga wax ak téléphone bi ñu dégg leen. <laughs> waaw kay gàll bi ci jawaar ci asin ku ma ñëw ku ma numaraale ak ndombay tànk yi tax koo ñaaw. ndeysaan. sama sama sama sama rakk ju baax ji. ndeysaan. yow doo sàmba àllaari. wooy ñu taxulaa jóg. Hmm. yow am nga sa ñaanu ndey am nga sa ñaanu baay. man mii di sa mag am naa sa ñaan képp koo bokkal ndey ak baay dimbali nga ko. gàlla mi ci jawaar ci asin kumba njoogu xale bu baax xale bu yaru xale bu dal xale bu am respecté nit am nga ngërëmal ndey am nga ngërëmal baay man mii di sa mag gërëm naa la sant naa la barke sëñ Fallou Mbacke Cheikh Sarr waaw ma ñag moom dama koy ñaanal yàlla sunu boroom yàlla yokk ko ba mu yëg ko barki démb dafa tabax kër gu am maanaa gu rafet jël caabi kër gaa këytu kër ga jox ma ne ma ndey faale demal dëkk. ndeysaan. barki démb la ma wàccee lal armoire coiffeuse. ndeysaan. kii dama koy bàyyee yàlla ak yonent bi du sàmb àllar wayu taxu koo jóg. yow Seex Sarr xam nga ma bu baax baax baax dama laa woo ci bakka di la woo ba mu jugee. wallaay ndeysaan ma ne ah Seex Sarr mi sonal naa ko. déedéet sonaloon ci lañ bokk. ah ci ma bu jot ma wala ne la dugalal bakka. bakka jaxtaan nga bëgg a bakka loolu la yow it. sama waay la ñu doon moomu ñu dëkkandoo ma yoroo seen biir kër. di ko taam su ma daan yóbbu ay seen kër laa daan dugg. fekk fa ay bàjjana fa laa daan foowee. ndeysaan ndeysaan dama ni ba kañang barke Alaaji Fàllu Mbàkke kenn du la yërëm. ndeysaan ca kaw ca kanam ci lu baax. parce sa yoon wi nga jël yal na nga yokk yal na nga yegg ni yoon. amiin waay yal na nga sekki ba mel ni dugub. sama yaay ñaanal na la sam papa ñaanal na la man mii di sa mag ñu bokk nday ak baay. su may wax ci yow sax sama yaram bi day daw. Oh. wala may jooy kan yow gàll mi ci jawaar yal na la yàlla yokk. amiin yi wax kàmba alaar wayu taxulaa jóg. teral nga sa ndey teral nga sa baay. teral nga say mag teral nga say rakk. ak sëñ Fallou Mbacke yow rakk du nekk États-Unis yaa ko yóbbu rakk du tukki mag bu tukki yaa ko yóbbu. yàlla la yàlla yokku nag ba nga yokku ñoo bokku ndey ak baay. day sama presque ngay caat waaye bakka kenn merewu la yow famille bi merewul la kenn merewu la yàlla na la yàlla yokk. amiin waay jërëjëf jërëjëf yàlla Mouhamed. jëf Fally Fally waay Faly waay yal na la yàlla bàyyi sa borom kër bi ngay sagoo chaque jour. amiin yaa rabbal aalamiin moom laa bëgg a dénk réew mi de. yow Cheikh Sarr yow man dama lay bàyyi ak yàlla ak yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam yow moom naa la bàyyi ak yàlla daal. jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw yàlla laa lay kontaan nañu kontaan nañu ndeysaan mi ngi noonu xam nga nag lii la olof di wax naan euh, ah. euh, bay ci say óom dëgg la waaw kay diw baax na bokk ya wax ko mm-hmm. dafay gën te dafay dafay dafay dafay gën a wóor laay ndeysaan kay dafay gën a wóor laay sama bu la seedee lii macha allah euh, mm-hmm. lii ci ci kanamu sénégalais yëpp tool fa allah lii mooy xuusal jàll rek walaay tabax tabax tabax na kër gu jekk dugal dëkkal ko fa dëkk ay mbokkam donc xam nga doomu aadama léeg-léeg damay wax rek. Euh, loo mën a liggéey liggéey liggéey te góorgóorlu woo am benn am benn ngunu sooy dugg. Mm-hmm. ndax mën daa gaaw noonu la be noonu la ñàkk gaawee. mën a di dafa gaaw waaw mën dafa gaaw mën a di gaaw. nga jéemal sa bopp benn ngunu soo xam ni bu dëkk bi yëngoo sax nga am foo serlu. wallaay dëgg la kon bakka loolu nga def sa bopp nga ko defal. waaye defal nga ko tamit sa famille. waaye mm-hmm. wërsëg ndey barke baay. dëgg la eh, sa bu bàyyi ree rek euh, doom ree. dëgg la euh, morse bi déglu ko

yow baba mani baba lii lépp yow ah mani baba ah bu nu lekkee yow baba ah bu nu naanee yow bu leen gërëm ki xam nga ki tax a toog lii lépp sama baay ji ma ko doy du ko dama nii bu buur jàngal na ma ami wax baay bu baax a ngi ko yàlla jox nga sidd moom baay bu baax a ngi ci la la ni woowee paa sa facture courant bi ñu mu ndox mi dañu ci la la ni woowe baay boos suñu njàng mi école ñu bu la gërëm ki xam nga ki tax a nga nga xaaju ci morceau bi xaaju ko ñëpp xam ne xaaju nga. ndeysaan. Cheikh yaa ngi gaañ de. barke ngi ci bàyyee. nan jëli suñuy barke ci suñuy bàyyi balaa mooy ak a ñëw ngir njaboot bu lépp taxawee moo ko waral baay bu sañoon doom jaa koy ñebe baax ni mu mën a mel mooy sa baay jël ko way ko wane ko way way jar na ko ba ko wayal ñu dem ah booy sa daraja dan la ko war a baay booy ndax daraja ju ci ñun baay noonu dar fa kàlla baka ñaa sargal baay wërsëg ndey barke baay ndax i nag bu yàlla ne aljana mi ngi ci suufu tànki euh, yaay yi bàyyi leen tamit ne bu ndey gërëmee bàyyi gërëm yàlla gërëm te bu yàlla gërëmee mucc doomee dama la fii ci dunyaa bi ak laaxira euh, gërëmal ndeeg bàyyi daal lu jën a sàkku ndax ñooy sa dunyaa ak laaxira seex lu leer nga wax waaw ah, waaw toog fa kal nan góorgóorlu wàcc bàyyi bu baax gën na ci baax na ci de dem mbay mooy gàllaaj bi gën a wóor moo gën a moo gën a wër waaye nag di ci sargal baay yi baay yi nga xam ne ay baay lañ waaye ay baay yu ndaw lañ ay dëgg la ay baay ndaw lañ ñun waaye ay baay yu ndaw lañ ay baay yu mag lañ te seen njaboot mhm. waaw parce que boo dee seet euh, jamono juñ toll yéen yéen papa 2.0 waaw ñun pap waaw ñun papa yi papa <laughs> waaw di di leen di leen jaajëfal mhm. di leen wax ni euh, fintee foofu la waaw parce que suñu borom moo nu jiital jël soxna jox ñu ñu am njaboot baay bu ci nekk ñi ci bureau yeeg ñi ci oto yeeg ñi ci taxi yeeg. ñi ci hmm. funa rek. Cheikh saar mi ci rajo beeg. télé beeg ah. naan leen rek yàlla na suñu borom dooli xéwal yi. amiin te bàyyi bu ci nekk li ngay sonn sa njaboot yàlla na ko gis. amiin waxtu jaay Seydina Mouhamed waxtu wi jot na sax. dañuy ah. bàyyi Bakar rek ko su ko defee mu tàggatoo nuyu xaritama ji soppeem yi joxe waat euh, dig daje ci album bu bees bi nga xam ne bi ngi koy wàcc. maa la wax lu mel noonu. Mhm. waaw Cheikh nag damay gërëm waa Pikine ginnaaw raay yëpp. Euh, di nuyu Samba Diarra mbay Euh, mu Pikine moom ñëpp a ngi waaw ñoom la Samba laa àndal noonu di nuyu waa Pikine gépp man man euh. Pikine nag man Pikine Pikine kenn laa fa gën a fan muy kan muy muy Godzilla géwél bu silvissé. mais ñoon kooku rek laa bëgg waaw Samba Diarra ma àndal morceau bi. Euh, invité ko ci. Euh. jarbaatam la. god rek bëgg. waaw god dafa neex. man dem YouTube dem YouTube tapé god god si la di ko déglu ba nawet. kooku ak géwél bu silvissé c'est kooku bi muy tëgg tànn biir moo daan wax ay saaga sax bu àndee neex. waaw loolu lay wax lay wax. god ma koy nuyu bu baax di nuyu gi yëpp ak ñëpp. Euh, di nuyu sama nga Cheikh ñoo mm-hmm. mu leen groupe local maa ngi bëggee ñoom bu baax a baax a baax a baax a baax euh, di gën a nuyu samay waajur di leen gën a ñaanal gudd fan ak wér. Euh, Cheikh Sarr ma lay gërëm yow it di borom di gërëm boroom kër gi. Mm. Ah, di gërëm sama jigéen bii moom it njoon. Mm-hmm. parce que ku ne xam ne ni peccum liir bu neexee nday jaatee ca mbagg yi. wallaay dëgg la yéen amuñu seen fay. amuñu seen fay. barke mm-hmm. yeneen bi dañuy way rek ñëw jox leen des fois sax way wi euh, manqué énergie mais ku déglu Cheikh sar wala Alima mhm. da ngay gën a bëgg way wa boo boo koy déglu loolu ñoom ngay dégg kon yàlla na suñu borom wéral cër yi te yokk xéwal gi euh, may nuyu Cheikh Diagne bu baax a baax di nuyu Abdou mbaay ah di nuyu ki nga xam ne mooy Papa Lamine sama transitaire mhm. di kontaan ci moom di nuy waa États-Unis nag mhm. di nuyu sama soxna te di ko ñaanal gudd fan ak wér amiin euh, di ko ñaanal li muy sonn ci man wax dëgg yàlla ak di góorgóorlu sëy bi yàlla na ko njabootam fay. amiin amiin amiin bi jaay Seydina Muhammad yàlla bu ma wujj yàlla bu mu dégg fu mu koy takkee di nuyu sama yaay di nuyu sama góor yàlla bu ma wujj yàlla bu mu dégg fu mu koy takkee. waaw waaw waaw ba tey léegi euh, may nuyu sama goro parce que yaay ju baax la. yaay ju baax la sama goro sama yaay la. waaw jow fara ma ca ndeer laata jow ma jow xoor maa ngi koy béggee bu baax ak Ndeye Fatou Diop <laughs> di béggee waa HLM 6 waa Grand Yoff ñoom ñëpp maa leen di béggee di béggee ndaak borom Brésil ak euh, Argentine maa ngi bëggee ñëpp Cheikh Sarr ku lim juum Amérique nag xam naa ne instant bii nii danoo teel a yeewu ngir jàkkaarlook ñun mhm. waaye maa ngi bëggee képp kuy yeewoo Harlem maa ngi bëggee képp ku yeewoo Bronx maa ngi bëggee képp koo xam ne yaa ngi yeewoo New Jersey ñoom mën nañ ko xaar sax guddi gi dañ koy tegaat guddi gi waaw mi ngi noonu dañ koy tegaat guddi gi kon nag Cheikh. Mhm. kontaan naa lool lool lool ku lim nag da ngay juum. Mhm. waaw parce que ñi bëggee bakka ñaa mhm. ñoo xam ne démb ba léegi euh, nelawuñu. ngir na ñëpp xam ne ñu ngi ci xol bi xam ñu ngi ci xol dëgg la te nag sama fan si nekk Sénégal nan xam ni. dinañ kontaan incha allahu bi ni li ñu bëgg naa leen ko jox bu soobee yàlla. incha allah mooy jàkkaarloog man ma génn faset yi ne ci man jox leen ko. jàkkaarloog ñoom ci ngéwal jàkkaarloog ñoom ci musique jàkkaarlook ñoom ci. ay instruments yi nga xam ni moom laay joxe préparer live yi. Njoon su boobaa yow laa ci àndal. dañuy jàkkaarloo dañuy jàkkaarloo mi ngi noonu kon waa Sen TV waa Sen TV ñoom dañuy dem journal ñu bàyyi la ñu dem journal eh, di kontaan bu baax a baax ci téléspectateurs yi ak internet yu eh, Sen TV Njoon. mi ngoog gërëm leen bu baax gërëm partenaires yi ñuy gunge saa su ne dig daje suba incha allah 10h 14h ci beneen Zik Feeling. jërëjëf maam si di équipe technique bi ñoom Chimère Diop waaye Jean jërëjëf suñu eh, équipe technique bi ñu àndaloon ci Zik Feeling gi suba.